hôpital le président de la république ci mbaaxam moo ñu ko ça veut dire que hôpital niveau un légui ce n'est plus à notre charge ça c'est l'état légui état moko jël en charge nommé directeur général bi jël budget bi nga xamné doy défal ko fofu pour ñun ñi mën a am fi à Agnam euh, yàlla dimbali nañu même ko amone problème dialyse yalla nañ ci yalla mussel fi nga koy defee do bouge am nañu au moins 16 lits yi nga xamné yépp amna ci lo xamné né ne bariwul ci hôpital yi mag yi suñu borom jappalé nañu lolu nak du luñu wara fiir lu ñu war a bëgg la ndax hôpital bi Agnam rek moomu ko Sénégal yëpp ko moom loolu aussi lu jar a xam la ay hôpital ay école loolu fu mu mënta am rek da nga leen da leen war a yéene ndax ñëpp a koy jëriñoo ça ne veut que nit mën na jógee Kolda ñëw di jàllis fii nit mën na jógee euh, Sédhiou ñëw di jàllis fii loolu mbir suñu borom la. donc nag loolu daal Macky Sall ginnaaw yàlla ak yonent mi ci régime am bi ko yàlla fale bopp ci njiitu réew mi ba tey jox nañu bopp jox nañu cër teral nañu am na fu ñu teg looloo waral. bis bu ne ñu ngi koy delloo njukkal di kontaan moom di kontaan ci nos collaborateurs yi nga xam ne ne mooy l'administration